sëriñ Cheikh woo ma di ma jox ndigal ci biir kër sëriñ Saliou waaye sëñ Béthio tax moo ñu dimbali moo ñu nargan ci ak taalube moo nu woon luy liggéeyal sëriñ Touba ndax sëriñ Saliou ko ko waxoon moo ñu ci teg ba fii may wax ak yow sëriñ Saliou nag da ko doon li fekk mbiri sëriñ Touba di dox sa mbir di dox kon day mel ni mbir may dox ba tey rek bu kenn jàpp ni sama jëmbi bopp ñee fi ne déedéet liggéeyub sëriñ Béthio la liggéeyub sëriñ bi la